sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul santaat Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw bi nga xamante ni boole nañ ci boppam ba pare taxawuñu wante cant googu dama koy teg ci loxo sama waajur yi tëdd fii di soxna Maymuna Mbàkke tegal ñu ko ci loxo Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha li waral ñu defee ndaje mi fii tey dafa am benn signal bu fort bu ñu bëgg jàllale ñu xam ne Mbàkke awma fi motivation politique wante dama fi am motivation de revanche et de relance pour que Mbàkke suñu dëkk bi nga xamante fi la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gane àddina dëkk boobu toll na ci man foo xamante ni moo ma gënal sama bakkan loolu mooy benn principe ñaareelu principe bi ñaareelu principe bi mooy dañoo am programme pour liggéey pour relever ay défis yoo xamante ni dafa ci dëkk bi tënku tamit histoire mouridisme te mun a wax histoire yoon mouridisme te tudduloo Cheikh Omar Foutiyou Tall mu baax mënuloo tudd Cheikh Ahmadou Bamba mi ko sos wante mënuloo tudd maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam tudd maam Cheikh Ibrahima Fall mënuloo tudd borom Saam Mamour Diallo mënuloo tudd Serigne Mbacke Bousso mënuloo ñàkk tudd Serigne Omar Diop mënuloo ñàkk tudd mboolem ñu baax ñi nga xamante ñu àndoon ak Serigne ci liggéey principe boobu nag nga xamante moo taxoon ñu jóg am une motivation bu taxoon ñu xar suñu tànk tubéy pour que Mbacke jóge ci niveau bi mu nekkoon dem ci beneen niveau. beneen niveau bi mooy ñu liggéey ba Mbacké tege ci sur les rampes de l'émergence wante fexe ba Mbacké ak Touba lënkaloowaat nekk entente Touba Mbacké ndax ah Serigne Touba mi nga xamante ni moo sas moo sanc Touba lépp a Mbacké la kon ñaari dëkk yooyu mënuñoo ñàkk ànd bu fekkente ni nag liggéey boobu man dépassé naa man sama fit sama ngor ak fa ma bokk doy na ma repère ba ku yàlla bind mënuma ébranlé ci àddina mu tamit ku mu mën a doon nag n'importe qui ku mu mën a doon quel que soit ton rang niveau mënuloo ma ébranlé dama ànd ak ay gor yu yiw liggéey bañ dénk ñu dëkk ñu ànd ak ay nit ci ay principe de respect et de considération liggéey ba àgg ci cëppaandaw nga xëy jël une décision arbitraire loo xamante joxoo ko nit nga xëy ne da koy nangu ci moom ñoo lànk dama dama bëggoon rek ñu fàttaliku te kiñ ko bëgg a def fam bàyyee ko 32 ans la dund sans liberté muy Cheikh Amadou Bamba muy Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul dundam yëpp da ko hypothéqué pour l'intérêt exclusif de l'humanité kon doomu aadama buy noyyi sa bopp féete kaw say tànk tuuti féete suuf tuuti nga ci jéem wàññi wala nga jéem a humilier samay mbokk mënul nekk du dugg ci dara nag du dugg dara du ma dugg ci dara te waxtaanuma ak sama ay kilifa looloo waral bërki demb dem naa ci Serigne Touba Cheikh mun Muntaxa mii sama kilif leeral ko ni mu demee laaj ko ndigal pour tàmbali liggéey mu ñaanal ma soññ ma mhm. ci yar mhm. ci teggin mhm. ci respe ci yiw ak exemplarité looloo tax nag may xamal askanu mag ne liggéey boobu ñu tàmbali ci dëkk bi ñaan nañu suñu borom àggale ko te ànd koog képp koo xamante ni bëgg nga ñu ànd ci liggéey ci loolu ma leen di xamal ne bis ni ko tey jël naa sama ay responsabilité ginnaaw bi mooy sama ndigalu kilifa waxtaan ak bokk yi waxtaan ak am di jàmm yi waxtaan ak soppe yi ñi nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew pour que sunu candidature ci mairie Mbacké ci élection locale yi ñu jëm ci mois de janvier 2022 ñu mën koo jëmmal leeral ko fësal ko ba nit ñëpp xam ko candidature boobu nag ñu porté ñi ma ko bëgg a àndal ñëpp it dama bëgg ñu xam ne dañ koy ànd àndub nawle àndub nawle mooy li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom li nga nar nga di ko wax ndax war baaxut war baaxut parti politique yu bari manifeste nañ seen solidarité wante damay tàmbale ci conseil municipal bi ma nekkoon te mandat bi war a jeex 2022 conseil municipal bi ña nekkoon di PDS ñëpp ci coordination Dame Sow ñëw nañ ànd ak man ci liggéey bi ngir ñu wéyal ko UJTL bu Mbàkke ci njiitul Cheikh Ahmadou Bamba Thioune ñëw nañu fese seen solidarité ñu ànd ci liggéey PIT ci njiitul Souleymane Thiam ñëw nañu àndal ñi àndal pour ñu wone seen solidarité ci liggéey bi réew mi ci ndigalul As Diagne ñëw nañu ànd ak ñun manifester seen solidarité ci xeex parti allié yi ëpp yu àndoon ci benn bokk yaakaar ñi ngi noonu may door libéré manifester nañ seen solidarité ak seen engagement ci xeex ndax li injustice la te dañ ko war a réparer dañ ko war a combattre ñun nag sunu dëkk kenn duñu tànnal ku ñu koy jiital lii nag bépp doomu Mbacké ak bépp doomu département de Mbacké jóg nga pour xeex injustice bi ci conseil départemental de Mbacké ak commune de Mbacké buñ ko buñ xasee bàyyi mu jàll képp koo xam ne dëkk nga Touba ak Mbacké jaratul ngay bëgg dara ndax c'est de l'humiliation mënuñu fekk ñu dëkk ci dëkk bi ay doomi dëkk bi nga bëgg leen a au détriment des gens yu fi dëkkul c'est pas possible maa ngi daaneel sama kàddu ci sant Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ngir dans l'histoire de Mbacké mooy premier khalife général des mourides bu taal otoom ñëw ba mairie seet si ma ngir ñaanal ma li may ñaan dëkk bépp la ñaanal kon nag ñu déclarer officiellement que sunu candidature ci mairie de Mbacké ñu ngi ko fas yéene dem ci bañeeru ànd coalition ànd nawle ànd nawle coalition boobu lañu fa yéenee demee pour battre campagne gagner élection yi yëkkatiwaat loxo liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi.